mbokk jullit yi ginnaaw bañ leen nuyoo bis bi ñu doon xaar ñëw na ban bis la mooy ndigal nag dafa jóge ci Cheikh Ahmad Tidiane si almatoom xalif général des Tidiane yàlla na fi yàlla yàlla may gudd fan yàlla may ko wér daanu nag ci rakkam ju baax ja ju tedd ja di sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin moo fu mu jëm pikin rek lay demaat ku muy seeti sëñ Modou Fata Sarr mi nga xamante ni nii moom ci boppam moo am ngan loo xamante ni at mu jot sëriñ bi sëriñ Abdoul Al Amine ànd ak mbooloo mu takk ñu gën si ko nag fii ci pikin ci marché pënd salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àdduna bi ci turu sunu mag Seex Muhammadul Fatah la ñuy yëkkatee kàddu ci bis bu mag bii di la 12 juin ñuy seenu gan gu mag di sëriñ Abdul Aziz ci al amin mu sëriñ Babacar si mu maam Seyd al Xaaji Malik kuy seenu gan gu mag nag woo ñu mag sëriñ Fataane mu ngi woo lépp lu askanoo ci wàllu meen ak ci wàllu gañu ci wàllam muy askanu Saar ak askanu Géy waa Caareen Jama waa Altu Gëñik waa Mbuur waa Fatick waa Kaolack waa Caajaay sëriñ Fata na bàyyiwul kenn waaye waa dëkkam ca Saalum Ndramé Escale waa Medina Salaam sëriñ Fallou turé rakkam sëriñ Xayri Touré bàyyiwul kenn ci Saalum bis bi seen bisa waa kër Sàmbaraxi sëriñ Ousmane Darame waa Jurbel xalifa Alaaji Mbàkke Tànjang maam Mbacke Tànjang ak rakkam ja sëriñ Omar Tànjang bàyyiwul mboolem daayira yi ci réew mi mboolem tariixa yi Touba Njaasaan kawlak ak mboolem tariixa yi ci réew mi bàyyiwul kenn waa Yoof kenn desul sëriñ Fataa na képp ku mu am lépp lu mu am woona la ci bis bi di la 12 juin ndax ki muy woo ni mu toll ci moom muy sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine nee na bàyyiwul waa yeen waa tubaab jalaaw ba waa tund boobu yépp bàyyiwul kenn ni ko mbokk yi waxee ñi ngi woo ñépp ci bis bi di gan gu tedd di sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine mu sëriñ Babacar Sy le 12 juin incha allahu taala bisu ñaan bisu hadratul juma bisu waxtaan gannaaw buñ jullee timis ñépp teew sëriñ Abdul si Sy Al Amine ak waa Tiwaawan teew mbooloo mi yëpp fas yéene taataan bàyyiwuñu kenn ñu ngi ciy woo ñëpp wasalaam.